Euh, mag ñi euh, ñoo gën a dof xale yi du samay kàddu kàdduy yi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al la te nee na jamono ngi ñëw xale yi ñooy jubbanti ñi nga xam ne ñoom ñooy mag ñi loolu yi allah moom it dinañ ci ñëw cëpp élément jàngat ko Serigne Cheikh Tidiane Sy Al yëkkati woon ko muy ay kàddu yàgg yàgg yàgg waaye nag waxu nit yàlla moom euh, jàpp nañu du dee loolu mooy li nga xam ni mbokk yi loolu lañ bëgg a waxtaanee incha allah rabbi muy ay euh, mbir yoo xam ne mi ngi ci kii bi kon Ousmane euh, Sonko bi balañ ciy ñëw ñu dem ci li nga xam ne mooy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bi Modou su fekkee ni pare na incha allah ñu daal di dem rési dellu siwaat des na tuuti mag dootul man yar xale buñ ko préparé dana baax lool buñ ko préparé yàqu-yàqu bu rëy dana am ndax des na tuuti rupture te boo amee gis nga yi mag ñiy wax naan xale yi li xale yi laa mag ña gën a dof xale yi ma wax ko nag waaw ko waxul xamul sax lu xew mag ñi ci lu ñuy wax dañuy sos mi ngi noonu ñu ñaanal ko yàlla na yàlla dolli ay leeram moom tamit moom Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon philosophie boo xam ni waxam yi bari jamono nga koy firi Assane euh, mu mel ni waxi Serigne Cheikh ji soo ubbee télé wala rajo wala internet rek da ngay daal di mën a gis lu koy firndeel ci ay mag yu ñuy jàppoon ni ñoo war a jubbanti tey jii xale yaa ngi leen di jubbanti. waaw am na solo Serigne Cheikh euh, Tidiane ci Al Maktoum euh, ñu ngi si ndokkeel euh, sama doom ji nga xamante ni mooy sama soxna Amina Saw hmm? ma ne maa ngi si ndokkeel sama doom Amina Saw sama doom sama soxna ah sa soxna maa ngi ko si ndokkeel bu baax a baax ndax sopp gum ko sopp bëgg gum ko bëgg ak it wóolu gum ko wóolu ak xam mooy kan yaakaar naa ne bu Sénégal gépp concentré woo ci moom di ko diglu danañ ubbeeku te hmm. dinañ yeewu dinañ xam lu bari man ay jamono doon naa ko wax ba ma demee place de l'Obélisque fekk fa ay paa ma ni leen gone yeewu nañ si mbirum Ousmane Sonko la sa topp fexe leen ba bu paa yi yeewu waaye fi ne nii mel na ni paa yi yeewu nañ ndax maa ngi dégg ñaan paa yi su paa yi Pastef yeeg magi Pastef yeeg yooyu kon bu ñoo ñu yeewoo rek ndaw ñu topp ko euh, bu ko ndaw ñu toppee mag ñu topp ko day mel ne kon affaire yi daal féete na benn boor mm-hmm. mais daal euh, kàddu yu am solo la na si ñëpp doolee jàngat te bàyyi si xel yàlla yàlla yokk ay leeram te taaf ñu si taas ñu ci barkeem jërëjëf maa ngi ci nuyu mboole mustasidina yi sama xaritu mustasidina yëpp maa ngi leen di ziara rawatina maam Cheikh Tidiane Diop borom Maktoum prod laay jàll Ablaye Jàll waaw it mustasidina bu mag bi mooy tee son bi alaaji waaw maam Cheikh de dafa mel ni ay waxam moom jamono da koy firi fu ñu toll mm-hmm. no xam nga euh, macha allah sëriñ Cheikh yàlla na suñu borom dool yaay leeram mm-hmm. euh, sëriñ Cheikh visionnaire la maanaam Euh, dafa am ay signaux yu mu gis rek ba tax mu ne des na tuuti mhm. euh, mag ñi dootuñu mën a mhm. yar xale yi parce que mhm. xam na ni xale yi romb nañ mag ñi te nit ñi bi muy gis lii li ci intéressant mooy xaarut ba mu yegg si mu soog koy wax maanaam da koo gis muy ñëw parce que am na yoo xam ne gis na ni commencé naa am yoo xamante ni moo koy firil ëllëg li war a ne mhm. maanaam tey am na koo xam ni faaw mu xaar ba yëf yi yegsi muy soog a xam ni yëf yaa ngi nii mhm. mais am na koo xam ni boo seetee seeni wax li tax muy dox mhm. mooy maanaam duñu wax tey ëllëg la ñuy waxal moo tax de la plupart dañ la daan wax ne la sëñ Cheikh buy euh, def li nga xam ne mooy waxtaan dañ lay wax ne la ñu bari mën nañ ko bañ a dégg parce que ci jamono ji ngay ne ak yi ngay nattee moom newul foofu mhm. moom romb na la ma ngay wax leneen day mel ni léeg-léeg sax lépp ak luppoon la mhm. ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi toog di déglu am na ñoo xam ne dañ naan oh, sëñ bi toj na jëriñ oh, yoo bi am na njariñ mhm. waaye boo leen laajoon xamuñu ci lu bari maanaam lu ci bari duñ ko woon mën a firi mais jamono moo koy firi que ni wax ji jamono moo ko firi tey li muy wax danga koy gis ci ay mag yoo xamante ni bi da lay wóor ne la xale yi leen gën a comprendre mm-hmm. li xew mm-hmm. da ngay gis ay mag yoo xamante ni bi tey li mu wax ne ay tappaleeki sos wallaay wallaay nee na sos rek la gis ay mag yu toog ci plateau télévision mm-hmm. toog ak gone gu ndaw mais da ngay gis ni mag mi buy wax dalay wóor ne la li muy wax ay sos la te da lay bir ni xale bi li muy wax lépp dëgg la parce que ay fee la lay tegal lu ne fàng lay teg mag mi di tappale loolu danga koy gis ci plateau télé à chaque fois nit ñaa ngi koy gis. nga gis waxi dof yi nga xamante ni bii yenn mag ñaa ngi koy wax. wallaay am na mag ñoo xamante ni bii tey seeni wax mën naa taar réew. dëgg la et pourtant ñi ngi wax. waaw nañu rey diw réew mi am jàmm. waaw mag a ko wax. waaw te loolu waxi dof la. loolu waxi dof la. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ay waxi dof yoo xamante ni bii mag ay mag a ngi koy wax. Mhm. donc li Serigne Cheikh wax maanaam tey. yow da nga koy mën a comprendre peut-être bi mu koy wax démb am na ñoo xam ne ñu naan eh sëñ bi li mu wax ëpp na wala lii ak laa comprendre ko mm-hmm. parce que gisuñu woon la nga xamante ni bii moom lay wax mais nag moom wax dëgg fa yàlla sunu borom da ko may moo tax gis nga léeg-léeg nga gis ñoo xam ni dañuy wax loo xam ni day biir mm-hmm. day danaan fang. Mm-hmm. tey jii dañ lay tegal waxu Sidy Lamine boo xamante ni bii mais day mel ni tey jii lay wax. dëgg la. comprendre nga. si maanaam nga gis ni ci liñ doon wax. Mhm. doonuñu woon wax daanaka tey mais ëllëg lañ lay wax ni yëf yi war a demee. donc nag yàlla na sunu borom dolli ay leeram. amiin amiin wax ji moom dafa mel ni tey jii moom. Mhm. Euh, jamono firi na ko. Mhm. waaw te gis nañ ko. voilà. mi ngi noonu wax ji euh, jamono firi na ko kon maam Cheikh Tidiane si al maktum mi ngi noonu dañuy gën a jariñoo ci ay waxam rek ndax buñ ci jàppee mm, dañu réer. te nag bari na lu mu doon wax naan sëñ Abdou Lahad ndeysaan moo tax héritage mag gi nañ ko nañ ko fonk yàgg naa wax sëñ Abdou Lahad bind na ma lettre bi bind naa ko lii waxante nañ lii te boo seetloo ay waxam toujours sëñ Seex maanaam luy benn la kër diine ak jàmmi réew mi da cee doxa doxa doxa doxa dox ba wàcc liggéey yàlla na yàlla yërëm ko